bëgg Seydi El Hadji Malick Sy من التلاميذ من ابن عثمان ودفنه سوى الحاج مالك ومني فقمت مجتهدا في ذاك منفردا لله مستنجدا بالله مولانا كم سيد الحاج مالك كوكو سبجورا تخوتكو نيرمان مولو بذلت مالا وإثما مسريا لبقيم يوديع يوديع سبحان مالك فكم وقت مئات الفارس ديدانا وسودانا مولى مودحا كل اشكال على الفقهاء من الشريعه حتى بين كان سيد الحاج مالك يا سنين جيت بافن تخنتيت فلك دور النميت جوفن صباك مرخ يا متى رئيس كل رئيس Cheikh Tidiane Cherif la roy te Cheikhuna waaju ko roy sunna senen bi doo ko rax moo ngay mel ni weer ci biiru niir ku gëmm sax janoog sa leer gi yàlla tas ci bépp gox ata nawsi لا يا منى vamos embora. ashrafil mursalin te defuñu yàlla lu tax mu jële leen fi ñun ñim fi bàyyi it defaluwuñ ko lu tax mu bañu fi kon ci bàgg gim ñu fi ba nañ ko sant suñu borom te di waxaat nii ne képp koo xam ni teew nga ci ronu tànt bi yàlla ak jëme sëriñ Alioune ba kese moo la fa indi te sëriñ Aline ba waxoon naa fii ni daaw ni gàmmu gi daf koo jële amoon ndigal la ci amoon ci sëriñam ba Seex Seydi Xaaji Malick Si booba ba léegi mu koy def ànd kook suñu way jur yi ak seen way jur yi yéen tamit ñëpp ñii wujj nañu ñii dawlu nañu bu yàgg ba léegi waaye boobu ba léegi daanaka même njaboot gi même famille bi ñoo fi resté ba tey kon ñu ngi leen nuyu bu baax di leen sant dama bëggoon nag dugg rek pour wax programme bi nu muy demee ci ndigalal kilifa yi ñu ngi fas yéene jox kàddu gi après Serigne Alioune Ba moom dana jotal yóbbante góor gi kàddu cant yi nga xam ni góor gi yóbbante na ko ci njaboot gi ak mboolem taalibe bu fi teew sëñ Alioune dana ko jottali ci làmmiñu góor gi la ko jottalee. gannaaw bi bu paree sëriñ Babacar Ba moom lañuy jox moom tam mu jublu ci waxtaanu gàmm gi a ah, bu paree it ñoom sëñ Lamine Seye ngi fi ak it suñu mbokki waykat yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi fii ci gannaaw incha allah bëgg nañ leen kenn ku ci ne donte ñaari minute la sax ñu jox la ko nga barkeelu ko ci guddi gi ndax lépp yiw la. gannaawut ba loolu wiyee dama bëggoon a jàllale benn programme boo xam ni mooy programme bâche bi ñuy def ndax organiser kat kenn képp xam ne organiser dafa metti waaye nag dana woyof ci bu ñi la ca war a jàppale suñ la ca jàppalee kon nag tànt bii bu ñu gisee mu mel nii dañu am benn groupe boo xam ni ñu ngi ko créé ci kër gi tuddee ko g quinze programme la boo xam ne pour organisation wu tànt bi ak it lu jëm ci wàllu kër gi moo ko tax a jóg li tax ñu tuddee ko G15 biñ koy sos dañ ne woon nañuy wut fukki nit ak juróom waaye ñu xam ne mbari Seydina Alioune ëpp na loolu ñu yaatal ko nag fi mu toll nii ëpp na sax 15 ñooñu ñëpp wax dëgg yàlla jàpp nañ ci guddi gi jàpp ci baas bi ba ci ba mu mel nii mu mel am na nit ñoo xam ni dañoo bokk ci njaboot gi. bëgg di joxe seen participation ci guddi gàmm gi waaye du ñu xam fan lañ koy jaarale moo waral ñu ubbi groupe boobu tuddee ko G15 ku ci bëgg bokk yow yaay xool rek ba mu neex la nga bëgg cee bokk parce que woowuñu ne kenn na nga ñëw bokk ci nag yow yaay xool ne rek mbiru sëñ Aline yitteel na la am nga yéene def ci biir kër sëñ Aline ubbi nañu groupe boobu ku ci bëgg bokk boo jokkoo ak sañu Ousmane mii sëñ Ousmane Ba boo jokkoo ak moom wala nga jokkoo ak man incha allah yàlla dana def ñu dugal la ci groupe boobu li ko tax a jug rek mooy organisation wu gàmm gi ndax sànq ci ngoon ku mel ni Badara Mbuub mi ñëw na gis ma it jox ma participation bi ni ma dama xamul organisation bi kan moo yor comité d'organisation bi ma ne ko man la mu joxe participation bu baax kon ñu ngi koy sant bu baax pour ma bañ a guddal nag foofu rek laa xam ne moom laa yemale woon kàddu kon ñu jël kàddu gi jébbal ko seeni borom kilifa yi nga xam ñom ñoo mom bis bi ah ñi taxawé ko nuñ ko wara a nak ci ndigal kilifa limay wax nak su guddé so guddé nak ma nañ mako bal lepp lu ci dëng ñi ki wax mo matul li ci jubit ñi xam ne suñu borom la alaykum wa rahmatullah bat bi ngeen di dëgg ak kaddu gi di ngeen di dëgg kaddu Cheikh ala aji Omar bah jaar ci rakam ju tedd toog ñu dend sëñ Abdou Aziz Ba bu Sidi Alioune Ba bu Cheikh El Hadj si yàlla na yàgg mu mel na defe naa ni la maam Cheikh waxoon ni boroom xol bu sedd dafa gaaw a bëgg képp ku bëgg yàlla bëgg Seydina Muhammad teew ci tant bii sa xol sedd na ñun nak dañu baaxoo dama nan bu may nuyu tay damay nuyu ki tur lay nuyu nuyoo damay nuyu sey dalun bax wërna ma ni kenn nga ci tante bi di nuyu sëñ Mansour bax wërna ma ni kenn nga ci tante bi di nuyu sëñ Babacar Ba di bah, khalifa bi sëñ Omar bax ñoñu ñi ngi ci tante bi ñoñu yóbbale ñepp gëw ndax mag ñi noonu tante bi amul propagande tant bi amul propagande ku miin gàmm da gis ñu dem ci télévision ba nañ ñu ngi woo diw di ko tudd diw di tudd diw wax ba xabaaba waaye bii keroog bi ñu nga xamee ni ren nañu tam xarit daje ci ci saalu xalifa bi def suñuy dog ba pare Pape Sarr Ngiraan mële imam yal na yàlla taxaw leen wax ak Babacar imam mun yaa sëñ Babacar nee na gàmmu gi jàpp nañ ko le 9 février góor gi ni nga ni góor gi ni nga ni ñu ne ko ne nañu jàpp nañu gàmmu gi le 9 février góor gi ni kon baax na gis nga kon baax na kon baax na am joojee ba tey jii kenn adduwaatu ci gàmmu gi kon nag macha allah gàmmu gaa ngi nii ku fi ñëw da nga ne alhamdulilah yàlla rek la nag. kon li ñu bëgg a wax mooy ñun dafa am nu ñu yare lu diine dañ ci amul maanaam propagande bi li tax amuñu ko ci mooy ku sopp si daal duñ bëgg yàlla bëgg yonent bi rek ba déggee bisam da nga ñëw moo tax toujours dañu am problème toujours dañu am problème ci daje gisoo Seydina Ba ñay jiite ca jàkk ja di tim mbalaanu wasifa ya ñooy tiim taabali way yi di ko way liñ fa war a wax ñoo ko war a wax ñoo koy wax waaye wolof day wax ni ku am gan yokk ndax gan goo woowul mu sopp ñëw fekke noo koy def loolu ñuy dal loolu ñu dal moo tax guddi gi day xat ndax da ñëw xool mu tuuti kii tag yonent ci rek moo ko saf mu ñëw teew si noo koy def sëñ Omar ni ma Pape Aline man ko am ah, mu ni ma gàmm gi ñëpp ngi fi ku sa maam am laa la wax ci kaw suuf te moom ñun gëm nañu ni képp koo xam ne tey jii ndaw lu nga xam ni dëkk nga njàmbur gii génn te jeexal kajoor wala tund wii foofu mën a teg ku fi zikar salaatu fatiha sa maam sa jaaluñu bàlla ko jox te loolu moo am waaye nag ba mu ko joxee la ca pare moo tax ñooñu ñëpp ku ci dégg rek turu gàmmu gi rek te gàmmu kat borom du ko yëg la nit ñee koy laaj nit ñi ñoo koy laaj kañ la gàmmu gi moo tax bu jotee rek day yomb moo tax góor ga ñu tey jii daal su reer ak suñuy terali gan ak lu mu mën a doon rek ku ci jeexale sant yàlla rek ngay def kon alhamdulilahi rabbil alamin ma bëgg nag bala ñu commencé li ñuy wax kenn ku nekk jàng fatiha def fallaxi ak naa salaatal fatiha ci ndigalu groupe yi ñu ngi koy waxee nañu nañu ñaan ñu dugal ko ci moom mi dugal ko dugal ci xalifaam bii di magam di kilifaam ak ku mel na sunu mbokk mu daan wax Seydou Dame Sakk nga xam ni mosul manqué guddi gi tawat moo tax ñëwul tey ak ñu mel na ñoom te xamuñu leen wax bokk yëguñu leen te gisuñu leen tawat leen te yàlla saafara leen ba déwén ñu bokkat tuufu tànt bi ñu jàng ko pare soo kon ne la ñuy def incha yal na yàlla dégguñu saafara ñëpp mi waral coow li mi waral coow li ba tax ñuy coow ak kan ki ñu ko xamal ba waral ñu sañ a coow taxaw tey fii fas yéene coow monsieur Dalioune Ba ak kan xalifaam bu tedd bii nga xam ne ba mu ko yoree ba léegi dafa yokk waaye yàquwul monsieur Ñomar Ba moo tax hee ndax sa bopp baaxul si daal malik ba mu woo si daalin ba ba wootee wootam ba ndekete booba boppam a tax ndax dama wax ni ba mu ne xasartu anil masayxi ajmayina ila seyxil murabbil waaridina hee gaa yi zarro kul sawaaxi wal awaahij fu ñu jëm ila seyxil mukarramil xaasidina yaa man yabtaxil نيل المواهب في داري دارنا والاسم السنان وتنجو من المفاسد في الزمان <laughs> وكونك لا لو ام صلى أصبحت عقيم شاهد ci dem makka ba ànd ak groupe lañ lay jëkk drapeau bu wax bi moy sunu moy sunu groupe ñun buñu gënné kaba ko na réer drapeau ngay xol drapeau fu folote nga ni sama groupe nga nalé ci dañ ba néna sidaj malik moy sama drapeau néna na bal kafili soxlaatuma dara moo ma doy sëkk te loolu moo dal si Alioune Ba ci sa ci sëñ Omar Ba mii ndekete ndekete yoo damaa defoon ni man dong la waaye ndeke kafiril muslimin ndeke jullit yëpp Seydi Hadji Malick mooy seen imam Seydi Hadji Malick moo leen doy te li ci garaaw mooy nee na walaw subikas yooxu taraa sarfan atiixan salsalilan li chari bii na nee na sëriñ sëpp bu ngeen dajale woon jël leen suub leen suub leen teg leen fële suub leen teg leen fële suub leen teg bu jëlee Seydi Aji Malick suub ko danga fekk muy ngalam piir waaye loola taxul nee na ndox ma ñu suubee Seydi Aji Malick nee na boo maree bu la neexee fekk muy ndox muy tam tamit na naan ko ci ndox bu ñu suub tawakkalu tawakkalu <laughs> wa zuhdu kalau gaffu ci dajmal di lolay gaffu suñu aduna ba moy gaffu suñu omar ba tawakkalu na tedd fe na nako ya mëna gam wo aduna bi yépp tedd sa kaw la yoro su kurus ñepp ñew mu ni dem len tante ba ma ma tok kurus tawakkalu ngo zuhdu ñu ne ko lu jël ak lan mu ni wa kafu anil maarimi loolu nag moo jafe kafu anil maarimi fegu ci li aram yëpp nga fekk ko sa bopp wal xuraan azim sunu benn yaay ñu koy wax yaa bi ci ndiir dafa jàpp sama loxo ni sëñ Omar ku xëy nuyu ko dem àjjana ku bu kontaan coo nga dem àjjana koo gis am àjjana ko ci àjjana man ko ah, mënuma ba ma ko xamee ba tey muy sëñ Omar mosul jaar ci ndaw kon nag wa kafu anil ma arimi moo tax mu ni zar ma joona na dof beeg bu ko déglu bu ko jege sax dalay mu ñu nag wa sumtun

من يمي قفلة طويلا نانا زهر جفونا نانا داول نرو سنو عمر نانا اللي نانا كاكسون بايب مسنو فاكي فومي نالي بوتي كون سيدا يجبان دف دفنوكو دفنوكو دفنوكو تجنوم خمنا نشان بقو yàlla rek a tax ñuy def fii ku fi ñëw yàlla tax ngay def ku fi wax yàlla tax ngay def ñun nag la yàlla nattu ñun la ñu gane si kon faw ñu leen faw ñun leen jërëjëf ci turu sëñ Omar ak sa turu sëñ Abdou Aziz loolu mooy sababu woote bi ma jëlee ko ci wayu na mu wootee moom wane daal ni Seydi Malick mii ngeen defa di man damaa dof ba wuti ko lii laa gis ci moom defar sama àdduna defar sama alaaxira kon nag ci gàttal macha allah euh, dañu bëgg ñu ci war a mos <laughs> ah, Mansour